l'observateur la ñu koy njëkkee moom nag xëy na tey ak euh, li ñu tuddee burka mu burka euh, muraille intégrale la sax ah lutte contre le terrorisme pourquoi Macky a interdit la burqa loolu la ñuy lire tey jii ci xëtu yéenekaay bii di l'observateur waaw Pape Cheikh l'observateur dafa xëy rek ci dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ne dañuy dakkal voile intégrale bi fii ci Sénégal maanaam muuraay gu ëpp gi loolee nag jàpp na ni yéenekaay bi li ko waral moo di mu ngi aju ba xeex wàllu terrorisme ndax nee nañu nag ku solo ni ah, doo xam daal lu nekk ah, ci biir te comme jamono ji dañoo toll daal ci xeex lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu terrorisme li gën a dal xel mooy ñu dakkal bile voile fii ci Sénégal. ba ci ministre de l'intérieur tey am na yenn yu ñuy xamal ni fi mu toll mu ngi dànkaafu ñëpp ni ah, Sénégal itam nekkul ci abri wu terrorisme yooyu le lu Sénégal n'est pas à l'abri d'une attaque terroriste loolu ñu ngi koy liir ci xëtu yenn bii di le témoin. Sénégal muccagu ci euh, loole la jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew xamle moom Abdoulaye Daouda Diallo xamle ne ni terrorisme mel euh, jamono ji ci àdduna bi euh, dafa ëpp te bu dee nag mi ngi laal réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp doole ci àdduna bi bokk Sénégal muccagu ci li li ñu war a def koy jamono ji moo di jël suñu matuwaay matuwaay yi war ngir rek ñooñee di amal ay ab ñaawtee fa bañ a yegg si fii ci Sénégal. ba ci populaire loolu la xëyee ñoo ngi liir ay kàdduk ministre de l'intérieur di Abdoulaye Diallo Diallo Daouda Diallo euh, tu as le terrorisme le Sénégal n'est pas à l'abri euh, d'une quelconque surprise Sud Quotidien itam même chose euh, loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk ak ay kàdduk ministre de l'intérieur moom itam nee na le Sénégal n'est pas à l'abri loolee nag ay kàdduk jëwriñ di ñu dénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye Diallo ministre de l'intérieur Zoom itam xëy na ci xëtam ñu ngi ciy liir tiitangeek jaaxle gi Ndakaaru jaaxle loolu yëpp jëm ci xeex gi ñuy xeex loolee ñu tuddee terrorisme waaw Pape Cheikh yéenekaay bi xam le ne rek ne fii ci Sénégal daanaka eh, ginnaaw li xew ca Paris eh, nit ñi dañoo tiit di bàyyi xel wala boo gën a bàyyi xel li nga xamante ne moom moo di wàllu terrorisme ak jee yi nga xamante ne mën na ko def ci réew ñu ne nag daanaka réew mi yëpp mi ngi ci bàyyi xel bu baax a baax li war nag moo di léegi ñu jël suñu matuwaay bokk na ci yile matuwaay gën a jox gëdd waaye tam moyen yu war takk der yi nga xamante ne ñoom ñooy wattu kaaraange askan wi. yéenekaay bi di laas ci xëtam bu njëkk bëgg ñuy xamal ni attentat yooyu ba muy am ca France violence woykat bii di Idrissa Diop ak doomam euh, xaw nañoo dee ndax tey euh, doom ji jot na ci am ay gaañu gaañu ci kanam geek mbagg yi moom nag euh, am nay wax yoo xamante ni wax na ko ci yéenekaay bii di laas tey ji ci suba gi ñu ngi koy liir ci xët bi. waaw moom woykat boobu lee di Idrissa Diop ni nga ko waxee Pape Cheikh laas dafa xamle rek ne mi ngi woon ci benn ci resto yi nga xamante ne attaqué nañ leen le 13 novembre bi passé ca Paris waaye nag laata fusillade bi di am moom jotoon naa dem yoonam benn. doomam daal bu fa desoon ñu koy woowee Théo Diop moom xawoon na ci jëlee ay gaañu gaañu waaye nag euh, jamono ji mën nañu wax ne il est hors de danger. yéenekaay bi di réew mi xëy na tey ak Afrique Pétrole yenn ci ay nit euh, yu fa ne euh, dañuy fouiller ci seeni vie privée loolu moo tax réew mi di xamal ni l'État met en garde Afrique Pétrole jëm ci commission de protection de données personnelles. des données di fa liggéey dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci seen vie lépp lu jëm ci wàllu euh, seen jokkoo ak lépp ci gàttal daal lañ leen di surveiller bu baax a baax loole bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di réew coow la ca euh, parti bi di APR ca Géejawaay ci diggante Bougazélé ki nga xamee ni moo di Aliou Sall di euh, euh, frère ci président Macky Sall loolee la bi di direct info xëyee tey ma nga ñuy won nataalu mel ni dañuy boxe moo tax mu ne ñu le boxeur Bougazélé sollicite l'arbitrage du président Macky Sall waaw par cher directeur info dafa xam ne rek ne ca géejawaay moom mbir yi rawatina wàllu politique du yomb ndax ay kàngam ñoo fa nekk bokk na ci Bougazélé moomu assemblée nationale waaye itam euh, frère wu euh, njiitu réew mi président Macky Sall di Aliou Sall ak ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Kanté directeur port autonome bu Dakar ñoom ñëpp nag daanaka euh, ci APR la ñu bokk waaye lu ñu seetlu moo di ne daal fële ca banlieue bu Ndakaaru di géejewaay gi ñu bokk ñàkk déggoo moom lañ ñemeeku seen diggante. ngir xeex terrorisme ba tey dañ ci ñëwaat yéenekaay bi di enquête amal na ci gëstu loolee la xëyee tey di daje boo xamante ni consensus national la ñu ko jëm ci wàllu terrorisme Benno Bokk Yaakaar bëgg nañu waaye opposition bi euh, ñoom fi mu tollu tembe di kujje gi euh, dañuy hésité loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bii di enquête dañuy hésité di ci am xel ñaar loolee enquête moo moo fa euh, xëy wax rek ne euh, jamono ji fi terrorisme toll ci àdduna bi li war ci réew yi moo di ñëpp booloo doon benn di xeex bile euh, phénomène ñu ne nag fii ci Sénégal benn bokk yaakaar noppi na ngir ànd ak njiitu réew bi président Macky Sall ci xeex gi mu sumb ngir xeex terrorisme waaye waa kujje gi ñoom ba tey ñu ngi def xel ñaar ndax dañ ci ànd ak Macky Sall am déet. ñu jeexal ak ñaari yéenekaay bi ñaari yéenekaay yi Grand ak Libération Grand Place yi du ñu xamal ni euh, ci xëtam bu njëkk ni euh, Aïda Patra euh, tegg nañu ko ci ay tuuma libéré nañu ko libération xëy amal ab gëstu ci coow lu ñu tuddee woon affaire mboo ci loolu la libération xëyee tey mbokk yi loolee yéen kaay yi la ak seen i xët ca kanam dinañu ko yaatal ci xóotal gi ak Mamadou Mohamed Ndiaye Fatima Ba Jaxate ñu bàyyi la nga daw bul yegg maatam nag yamal rek ci bureau boobule pour taataan ay xibaar bu ko defee fileek ay minutes dina tombé ak gën koo yaatal merci 8 heures euh, léegi mu jot puisqu'il